أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما أنا بباسط يدي إليك لتقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفس قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi nuyu ñëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah te alquran yitteel la saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yitteel la ñi ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ziyaara waaye di la balu àq tamit di la ñaanal yàlla ak foo manti nekk di leen wax ne fii ni ñu nekk nii di wax ak yéen daarul xaaji abdul aziz si da baax radiallahu anhu daara jooju la ñu nekk tey eh, di fas yéene dëgmal bés boo xam ni eh, bés bu rëy la bés bu ñu amal solo la bés bu amal islam solo la muy conférence annuelle boo xam ne ren ji ci 2019 bi lañ ko préparé pour génne suñu première promotion ci daara ji première promotion yooyu onze la ñaar ñi wattu nañu téere yàlla bi maanaam mokkal nañu ko ñi ci des wàcce nañu ko macha allah su ma yeboo ma ne daanaka mokkal nañu ko sax ndax ñi ngi toppaat ñooñu la la ñuy feetal ren ñoom lañu ñu bëgg feetal ren di ci woo jullit yépp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ñi ngi lay woo ci bis bu sell boobu ànd koog nag waa Tiwaawan nga xam ne fa la maam alxaaji abdul aziz si mi ñu dippee daara ji fekk baax ak képp koo xam ne rek jullit nga yaa ngi wuyu ci ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah euh, suñu marraine bu mag bi moom mi nga xam ne moom la ñu bis bi mi ngi ba Allemagne soxna mam Ulay Ba ak soxna Yaasin si soxna Yaasin si nag moom dafa jël boppam sax moom moo marraineel boppam daara ji yàgg na bi mooy troisième édition incha allah ñukoy def bobu batay mi ngi ci and ak ñun ak suñu yaay ju baax joju ci suuf di yaay Aminata ja nga xamne moy borom kër gi tay mo ñu jox kër gi ñu tok fi di jang alquran ak xaritam soxna Fatmata ak njabotam yépp nak di len nuyu di len ñaanal euh li fi ñu bëgg ci islam Yalla na len fa yalla eggale ak fa ñu bëgg islam egg fa yalla na len fi agalé dat bi nak eh, ñu ngi ko japp le 14 septembre inshallah allah le 14 septembre bu soobee yalla moy bis di gërëm nak oustaz yi nga xamne ñom la andal fi fii ñu yor xalé yi japp ci ñangalé mi ak yaru xalé yi ak seen animateur yi defena gis nga len sank ci suuf oustaz Youssou Dieng ak oustaz Ibrahima sis mu andal waaye di gërëm yaayi daara yi suñu wax yaayi daara yi nak ñi nga xamne ño nek ak yi fi ci biir daara ji ku ci melni soxna mariam Dia sama rak soxna khadiba Ba ña nga ne ñom dañu melni ñu ragal eh, ki bi ak eh, Sukay ak jeyna bak ñom mam Fatou ñoo ñu nga xam ne ñoo yaayi daara yi jàpp xale yi ña nga ca waañ wa ña nga ca euh, fóot ma ña nga ca lépp lu jëm ci set lépp lu daa euh, xale yi ittewoo rek ci seen nekkin gën a baax ñi ngi ci taxaw seen kamtalaay kàttan yàlla nañu leen yàlla fayal waaye dañu fàtte suñu doom yi tim doom yi nga xam ne jàpp nañ ci ñi ngi ci guddi ñi ngi ci bëccëg ak dëkkandoo yëpp wax dëgg yàlla waaye di jiital ci ñooñ nag imam Sarr mi nga xam ne moom mooy suñu kilifa ñun ñëpp imam Moustapha Sarr ndax lii tey bu amee moo ko waral bëgg na daara ji egg foo xam ne macha allah moo ba tax na gis nga mu indi ñii ñu nekk ci di filmer ka euh, defar macha allah pour bëgg lépp jëm ca kanam yal nañu ko yàlla mayal wér may ko gudd fan di ñaanal suñu soxna Atta moom tamit yàlla may ko gudd fan ak wér bu wéroon ba tey teew na ci waaye ñàkk wér ko téye ñaanal soxna Xadijatu ak seeni njaboot ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal imam Moustapha Sarr ñi ngi lay ñaanal nekk ko fi way melna na ne nekk nga fi ndax ñola fi taxawal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu jox président bismillahir rahmanir rahim gannaaw bu ñu sante yàlla jull ci Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam san suñu ñaari waju ñi santaat yàlla bu baax di wax alhamdulillah rabbil alamin di sante imam sar mom mi waral bés bi mom mi waral li di sante soxna Fatima Sow di santaat soxna Fatima Sow di santaat soxna Fatima Sow li tax ma wax ko ñetti yoon dafa jël suñu ay doom dugal ci seen bopp alxuraanu karim jël yaay daara yi dugal ci seen bopp alxuraanu karim uuf ñu tette ñu di ñu digal diine ak lislaam boo gisee taxawaay bi tey yàlla ak moom la a ah, ñuy dëgmal bés boo xam ne nag bésu yàlla la ak yonent bi ak Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif ak maam Abdul Aziz Dabakh bés boo xamante ne ñu ngi ciy woo jullit yëpp bàyyiwuñu kenn képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulillah ñu ngi lay woo di la wax ne bés bi ñor nañu lool lool lool lool bés bi nag le 14 septembre la incha allah bu ñu ci yàlla yóbboo bés bi nag ñu ngi ko jagleel ki nga xamante ne ah moom diine rek moo ko ñor bañ na ba def na woon sa yaayam tant que maa ngi dund nekk ci kaw suuf fépp fu daara alxuraan nekk dinaa fa samp ravitaillement yaayam génn àddina mu ne ko déedéet duma ko bàyyi mu dem man mii maa koy jagleel muy soxna maam ulay ba ñu teg ca Adja Yaasin si mi nga xam ne ba daara ji sampoo ba tey dërëmam ñaar dërëmam dara fekkewu ko moom moo jël daara ji mareneel ko boppam ba ñu fa jógee nag ñuy oo ñëpp ñi nga xam ne ay kilifa lañu te wër ñu bàyyiwuñu suñu monsieur le maire bu mbaaw ja Suam war di ni meeru meeru Dakar kep ko xam kilifa nga rek ñu ngi lay o ki nga xamante ne nag bu daara ji taxawee ba egsi bu fi ah muy yaay booy ya ya Fatimata ya Aminata ñu ngi lay wo ya Aminata mi nga xamante ne keroog daaw ba nga ko ne ñëw lañ maree ne daara ji doxuñu sax CFA ay euro euro euro la ñu jox jox ñu bâtiment bu toll ni yalla yalla yagal taxawayam baye kenn madame Mbacke kuñ lim juum wala nga fàtte ñu ngi woo ñëpp képp ku julli rek ñu ngi lay woo sa jëmm sa taxawaay sa loxo ak sa kàttan ak sa mën-mën. li gën a yéeme ci date bi nag date bi dafa tombé anniversaire maam Abdoul Aziz Dabakh muy le 14 septembre defe naa ne jullit yëpp képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulillah war ngaa jàpp date boobu ndax jëmm jooju. nitu yàlla boobu nitu alxuraan boobu le 14 septembre bu ko kenn wuute bu ko kenn fàtte def leen ko ci seen ngegenaay yi ak seen bopp lal yi di ko solee seen dàll yi le 14 septembre incha allah bu soobee yàlla sama yaay daara yi nag takku nañ lool am nañ pastef lool yan ne leen yàlla fay ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala Seydina Muhammad wa sallim. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. maa ngi nuyu mbokk jullit yi di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di woote nag ci suñu bés bii ñu dëgmal di le 14 septembre di anniversaire mamab Mame Abdou Aziz bi nga xam ne xartu ñëpp la woon muy murit di laayeen di xaadir di ñaseen ak bépp jullit buy dox ci kaw suuf soppoon nga jëmm joojule ndax ñëpp la boole woon def ñuy benn amul kenn koo xamante ne nii am na looy arrière ci suñu ci maam Abdou Aziz kon nag ñu ngi ñaan bësëm bi yàlla mel ni moom yàlla na ko téyel boppam ak suñu borom ci barke Nabil Moustapha ñu ngi woo waa Mbaaw woo waa Pikine woo waa Parcelles Cambérène Yoof bàyyiwuñu kenn dakaar Tëngéej ñëpp lañu woo ñëpp bëgg nañ ñu fekkee si ko incha allah rabbi ndax suñu yaay jii di seydaa faatimaa Sow ñu woon leen macha allah li mu def ci yaayi daara yi ak li mu def ci xale yi daara yi. ñu ngi woo monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ak soxnaam ndax euh, gis nañ li muy def ci daara yi ci Sénégal kon nag ñu ngi koy woo moom muy jiitu réew mi nga xam ne moo jiite ñëpp ñu ngi koy ñaanal mu taxaw ci suñu bés bi. moom ak soxnaam ak képp ku nekk ci gouvernement bi ñu ngi leen di ñaan ngeen euh, jàpp ci bés bi. ndax euh, le 14 septembre la di bësu maam Abdou Aziz Sy baax di wax nag euh, woo nañ kilifa yëpp daal gouvernement bi bàyyiwuñu kenn képp kuy def lu baax ñu ngi lay woo maire yi commune ñëpp ñu ngi leen di woo bàyyiwuñ kenn chef de quartier yi chef de village yi amuñ kuñ bàyyiwul daal macha allah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa rahmatullah ginnaaw bañ sante yàlla julli si yonante bu bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ña ngi sant ñu fi teew ñëpp di ñaan yàlla suñ bis bi ñu dëgmal yàlla def si jàmm bu baax a baax te am nañ ci yaakaar am nañ ci yaakaar bu baax muy la 14 septembre tombé anniversaire u maam Abdou te moom lañ tuddee daara ji kon loolu moom yàlla incha allahu taala am nañ yaqin ne yàlla dina si def jàmm. ginnaaw loolu nag nañuy gërëm Sayda Sayda Fatim Sow ña koy gërëm bu baax a baax. waa ña ngi woo ci mbokk ustaas yëpp ak fu jullit nekk rek ña ngi lay woo nga ñëw teew bés bi képp kuy ku bokk si ñooñu ahlul quraan rek yaa ngi ci bis bi. ak daara yëpp yu nekk si gox beeg yëpp képp kuy kii rek ña ngi lay woo ci bis bu baax a baax.